Saliou Sabari Sabari li ma wax ma ni maa ko wax ma ni xam nga papa ñu ngi ko daan woowe Saliou Saliou Sabari Sa gis géej waaye tey la gis mu dima fàttali sa wax ja keroog ngeen ci liiru jaan moo ñun géej coow jiguñu tey gis naa Balla Gaye 2 gis liiru jaan gis Pape Mama gis Rone gis fils de Balla gis Sa Thiès. gis nga bu ñu fi daal gis rek. màggatam jaan. yàlla baax na soo leen ngeen ko wee yàlla baax daal waaw di rafetlu aussi tamit li ñu fi boole yëpp nga xam ne dañoo am bis. tey bis bu bi tey lay tëj te bu ci bëri ñaan nga yàlla tëj ko ndam mais maa ngi ñaanal yàlla yàlla may ndam euh, Youssou. ñu ñaan aussi tam réparé yàlla may ko waaw Saliou Sa Thiès a ngi nii toog Franc fàqe fële ànd ak Modou Lo barki démb man dama njëkk dégg Saliou ne bu ñu ma fayee million yu ko jar dem ba ne man nekk ma fi di may sens est-ce que Saliou gëmoo ni que léegi làmb business la business xaalis kenn dégguma ma ne bu ñu ma fayee ma jël ngeen te lool jaan loolu nga wax bu ma fayee lu ko jar lamb bu raisonnable fay bu raisonnable bu raisonnable nag fayal bu raisonnable man foofu laa tëddee ak yéen bu dëgg. sa combat ak Reug Reug asafura sa combat ak Franc mais a combat bu neex la. waaw nit ñi ñu ngi koy wax mais waroon naa neex ñu wax ko ba ma daanee rek pas promoteur bu wax ci ba pare ñu doog ci wax bu dëgg voilà. mais ba tey yow ba tey taxawoo ci tànku bëre ak Franc. non li ma li ma wax rek moom lay waxaat bu doon sama sago. damay dem bëri jéeg samay mag parce que fa laa toll mënu ma fa toll di reculer waat di demaat foofu tolluwaat fa di reculer waat gëm ni risque la ci yow. non non non lépp risque la lépp risque la. Sa Thiès xaarul diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène. Sa Thiès ñoo ñooñu ñëpp ak ñi nga bàyyi ñoom laa bëgg a bëreel. Saliou dafa mel yaram day xasan léegi Saliou léegi da nga da nga ñeme sañ bëri histoire léegi da nga da nga lan la. man na saa bëri soir laa bëri bëri mu soir rek. tey Franc Modou Lo la àndal tey Modou Lo. waaw mooy yoon. Balla Gaye Sadio sa àndal. ànd noonu la rek. ku la fay cent millions sa diggante ak Franc. non non dëgg yàlla am naa lu ma gënal am naa lu ma gënal dëgg yàlla am naa lu ma gënal. mais Salick combat Franc ñoo bokk lu ñu bëgg. da ngeen a bëgg a dem. dañoo bëgg a dem.